alhamdulilahi rabbil alamin <clears throat> mbokk jullit yi nu màggal borom bi taala wa tabaarak di ko gërëm di ko bàkk di ñaan mu jéggal ñu suñuy rëcc-rëcc suñuy njuumte noo ngi julli tey sëlmal ci ar muhammad sallallahu alayhi wa alihi di ko ñaanal jàmm moom ak i sahaabaam <clears throat> ak taabiina lahu bi isaanin ila yawmi sunu ba tey mi ngi tënku ci al ak axlaaqi muy la corruption morale nga xam ni yàqu bi nga xam ni jikko yi nit ñi walla li ëpp ci ñoom yàqu na mbokk jullit yi lu bari ci nit ñi bal jullit ñi dangay fekk ñu wéeru ci yërmande yàlla yal yàlla yërëm ñu ak njéggalam ak mbaaxam ba loolu ñuy wax ni yàlla ku yaatu yërmande la te muy dëggu jamono bu nekk nit ñi di ko wax waaye am na ñooñ dañoo jàpp yërmande googu ba tax li borom bi tere duñu ko bàyyi ñoom dañuy jàpp rek comme yàlla ku yaatu yërmande la ñoom mën nañu nuur ci seen bàkkaar nuur ci seen jikko yi ñaaw suñu demee yowmal qiyaam yàlla baal ndax kat borom bi yërmandeem lu yaatu la waaye nag gis nga borom bi fu mu la tegalee yërmandeem bu yaatu rekk teg na ca wet ga ne ku metti mbugal la ku tar nu muy mbugalee la sadidul iqaab kon ni yërmandeem yaatoo ba jaam bi yaakaar ko noonu la war a tegee ca wet ga mbugalam loolu nag mbokk yi nanu xam ni borom bi lu mu nar kenn mënu ci dara lu mu décider kenn mënu ci dara lu mu dogal kenn mënu ci dara loolu moo tax <clears throat> lenn ci boroom xam-xam yi ñuy wax ni képp koo xam ni danga wéeru ci njéggal ak yàlla ba tax nga sax ci ñaaw jikko bari bàkkaar yow danga mel ni ku ne yàlla maa tey li may def ndax kat yàlla subhanahu bari taala bëri yërmandeem doxul digganteem ak mbugal kii bàkkaar bëri yërmandeem doxul digganteem ak mbugal borom jikko ju ñaaw kon nit ki bu mu jàpp yaatuk yërmande yàlla ba tax moom mu dëkk ci mooy yàlla am na boroom xam-xam bu ñuy wax maaruf nil karaxi nee na <clears throat> yaakaar bi ngay yaakaar yërmande koo toppul loolu ci gàcce dong la lay jëme bu fekkee dangaa yaakaar yërmande yàlla kon la rafet moom mooy nga topp yàlla bu fekkee dangaa yaakaar yërmande yàlla kon la rafet moom mooy nga defar say jikko ndax boo defaru sa jikko dafa mel ni dangaa dugg ci ak ndof lenn ci boroom xam-xam yi ñu ngi joxe misaal ci àdduna bu ñu mën a xam nee nañu boroom bi nga xam ni sàcc ñetti diinaar rekk sabab na mu ne nañ ci dagg sa loxo kon kooku boo ñëwee yowmal qiyaam indi bàkkaar bu ëpp loola kon foo jëm xam nga fii ci àdduna ñu nekk rek àttab islaam mooy ku sàcc lu tollook ñetti dirham ah, ñetti diinaar ku ko sàcc rek mooy dañoo war a dagg sa loxo wala ni yow sàcc nga waaw ñetti diinaar buñ ci daggee sa loxo mu ne ka ca daggul sa loxo te moom mooy yàlla kon yowmal qiyaam boo indee benn bàkkaar bi dëgg-dëgg war ngaa xam ni mën na laa mbugal mbugal mu yaatu loolu nag boroom xel moom moo ci xalaat mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne boo gisee ab jaamu yàlla dëkk di mooy yàlla di tooñ yàlla yàlla di yokk wërsëgam nee na loolu bu ko jàppee yërmande bu ko jàppee mbaax na nga ko jàppee dëxëñ bu ko yàlla dëxëñ la ndax xam na ni mun taraw tey boo seetloo société bi ñi dàq mooy ñoo ëpp alal ñi gën a ñaaw kàddu ñoo ñëpp ëpp ay postu ñi gën a ñaaw jikko ñoo gën a tedd ñoo yore oto yu rafet yi ñoo yore kër yu rafet yi ñoo yore soxna yu rafet yi ñoo yore kàddu yi te ñoom ku ci wax rek nga bëgg a tufli ku ci wax rek nga bëgg a wàccu ndax jikko bu ñaar xam ngeen ni jikko mbokk yi mënta nëbbu maanaam tur bi mi ngi tekki jikko li nga ji mooy sax ngeen xool ci terrain politique bi ak dëkk bi ni muy bindoo tey ñi gën a ñaaw kàddu mooy ñi yées ci askan wi waaye tey ñoom lañuy ñuy ñoo xamante ni rusuñoo sàcc rusuñoo détourné alal rusuñoo lekk lu ñu moomul rusuñoo saaga publiquement rusuñoo wax lu bon publiquement bu fekkee ni sàggan nañ ba ñooñu ñooy nekk suñu kanam toujours di décider mooy société bi nag dëgg-dëgg àgg na ci yàqu yàqu goo xam ni sànkar na mbokk yi lenn ci salafu saalih dañuy wax ni bëri na ku yàlla nax ci wërsëg koo xam ni yàlla dalay jox wërsëg rek wërsëg wi yokku nga topp wërsëg googa di ci baatre xaalis topp wërsëg booba di ci dem ci dansin yi sopp wërsëg boobu di ci mooy yàlla waxtu bu nekk te wërsëg bi yokku nga foog ni yàlla dalaa ndimbal fekk yàlla daf lay xaar ba bis su bis ba jotee mu futti la ba nga set xisaab la te bu la xisaabee boo deful ndànk iqaab moo ciy topp kon mbokk yi jikko yi war nañ koo rafetal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na lanu xamoon démb ak la dabe woon ci banu israil seeni yonent lañ daan wax nit mooy ida tas taxi fas na ma muy benn règle bu gàtt di bi genn kàddu gàtt mooy doomu aadama bu amul kersa rek lu ko neex mën na koo def gis nga jullit mbokk yi ak lu mënti am dangay am kersa dangay xool sa digganteeg sa borom nga xool sa digganteeg sa moroom xool sa digganteeg yonent bi waaye xool sa digganteeg diine juróomeel bi nga xool sa digganteeg société bi nga jël tey am na nit ñi ñoo xam ne lu ñuy dund mooy zémophotisme boo xam ne kenn xamut lan la ak maa tey lañuy dund lu ñu bëgg a def lañuy def lu ñu bëgg a wax lañuy wax amuñu gêne ci dara jikko yi yàqu na jikko yi ñaaw na sottante musiba yi bari na siggiwante yi bari na kenn ci nit dootul nëbbal nit benn secret kenn ci nit dootu ko nëbbal nit maanaam daal léegi dañoo tollu ci jamono boo xam ni nit ñi dañoo mel ni ay seetu kenn ku nekk li ngay wër ci sa moroom mooy lu ñaaw waaye la nga ca yàkkamte mooy nga siiwal ko moo xam ci internet bi la walla ci télé yi walla ci rajo yi bu ngeen xoolee jamono bi ñu toll ci ci politique bi nga xam ne ñu ngi ci campagne yi su ngeen seetloo débat politique yi gars yi organisé nga xamante ni partisan ñi ñi nga xam ne ci ay parti lañ jóge su ñuy toog di def débat da nga naan Sénégal fan la jëm léegi dañuy bàyyi débat bi ñu war a wax nga xam ne luy jëmal réew mi kanam mais léegi dañuy personnaliser débat bi dañ koy personnaliser ni ñu koy personnaliser mooy diw nangam la diw def na nangam diw def na nangam loolu la ñuy nekkee ba émission bi jeex moo tax boo seetloo émission débat yi am ci Sénégal ci moment élection yëpp. néew na ngi gis ci débat boo xamante ni jaar na yoon à cent pour cent parce que du nekk débat d'idée débat xasante lay doon ñii campagne la soos chose da ngay fekk ni tet yi nga xamante ni ñooy campagne ñoom ñooy dagaan baatu askan wi bëgg a Sénégal ëllëg ci lan la ñuy nekk xasante diw sàcc na diw dafa nangam diw dafa nangam mu mel ni dañ ñoo yóbbu léegi ci norme américain nga xamante ne tey américains yeeg européens yi seeni norme lool la ñoom bañuñu waxante lu bon bañuñu ba yóbbu la kaso bañuñu ba waxal la musiba boo defoon jamono bii nga xam ni àgg nañu foofu mooy nañu yëg ni nag perte nañ suñu repère lan moo ko indi mooy ñi waroon a taxaw pour defar jikko yi pareetuñu ñi waroon a wax noppi nañ léegi ñiy wax mooy politiciens yi politiciens yi seen wax mooy seen intérêt amul benn politicien buy wax te sóor ci yàlla amul amul benn politicien buy wax sóor ci diine amul amul benn politicien buy wax sóor àllaaxira amul ñoom ñépp seeni wax mooy su ngeen ma falee su ma toogee su ma nàngamee ñi ci ëpp nag la ñu jàpp mooy bu ñu toogee nañu nekk buur di bummi di def la leen neex loolu bu fekkee société noonu lay bindoo mooy dañoo nekk ci phase boo xamante ni phase bu très dangereux la dañoo dem tey ba léegi gaspillage bi ngeen di seetlu ci alal ni ñu koy fowee ci réew mi alal ni koy fowee ci réew mi nga xamante ni nit mën na toog jël alal di sànni di ratatat di sànni di baatre nga xam ne kii boo ko seetee da ngay xam ne du borom jikko ju rafet kii boo ko xoolee da ngay xam ne du ku nu war a topp parce que alal ki koy jël di ko sànnee noonu ñaar rek moo mën a am ñaqoo ko ci ñaq bu lew daf la yomb moo tax nga di ko fooye waaye baadoolo yi miskin yi te gis nga ñey jël loolu di ko sànni di jël alal di ko sànni boo duggee seeni biir kër danga fa fekk ñu ko soxla te joxuñu leen ko boo demee ci seeni dëkk da nga fa fekk ñu ko soxla te joxuñu leen ko lan moo tax mooy seytaane moo leen mën def leen a nax nax goo xamante ne istidraaj la tudd moom mooy dañu leen wëlbati parce que jàpp nañ jamono bi ñu toll xaalis du dara moo tax dañuy gaspiller xaalis nu mu leen neexee dañuy sànni nu mu leen neexee parce que jàpp ñu ne war nañu leen topp ëllëg devant la justice jàppuñu ñu loolu sóoruñ ne yowmal qiyaam yàlla dana leen ko laaj te xool leen yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nee na yowmal qiyam jaam bu nekk sa tànk fi mu tege balaa ndeyjoor bee fekk càmmoñ bi ngay avancé wala càmmoñ bi di fekk ndeyjoor bi ngay arrière quatre questions yi di nga ko tontu ñeenti mbir képp ku gëm yàlla di jullit na nga bàyyi loolu xel muy man sëriñ bi yonent bi wàllu yi bi politicien bi ñépp yonent bi nee na kenn ku nekk ci ñun balaa ngaa buuse mètre yowmal qiyaam su nit ñi dekkee malaaka mi wal bufta bi suuf si xar comme toolu ñam bi bu ñor nga xam ne day commencé fett ñii bay ñam bi xam nañ ko ñam bi bu demee bay ñor xam nga ñam bi ci suuf lay nekk li lay wan ni ñor na mooy suuf si bu tàmbalee di fet nga xam ni ñor na bu nit ñi tëddee ba ñépp dee malaaka yi jinne yi dara desut ku dul borom bi taala wa tabaarak mu soxla jaam ñi dekki keroog bu nu walee bufta bi fa ida nuqira fi naaquur fa dalika yowma idin yowmun asir borom bi nee na bu ñu walee liir mi yowmal qiyaam keroog bés bu metti lay doon fa zalika yawma izin yawmun asir bis boobu li muy metti metti ne alal kaafirina xayru yasir du yomb ci yéefar yi su ñu nee yéefar yi nag yow jullit nga nga jàpp ni yéefar rekk moom wax ji même jullit bii bàkkaar ci la bokk jullit bii mooy boromam ci la bokk jullit bii fowee diineem ci la bokk jullit bii sàcc alalu askanam ci la bokk jullit bii jël lu mu moomul di ko fowee ci la bokk keroog xayru yasir borom bi lu muy wax zarni wa man xalaqtu wahida wa jaaltu lahu maalan mamduuda wa banina shuhuda wa maxattu lahu tamhiida summa yatmahu an azid borom bi ne muhammad bàyyi ma rek ak ki mu bind man dong zarni wa man xalaqtu wahida yow jaam bi bala yàllay bind moom rekk yow rek defaloo ko lu tax mu bind la ñaanoo ko lu tax mu bind la moom la neex mu bind la nee na moom yàlla moom la neex mu wër wërsëgal la wa jaaltu lahu maalan mamduuda nga diriger réew wala nga nekk partisan walla nga nekk ministre wala nga nekk député wala nga nekk maire wala nga nekk leneen alalu askan wépp ci sa loxo wa jaaltu lahu maalan mamduuda alal baa ngi ci sa loxo lu la neex ngay def jàpp nga ni yow rek la keneen bokkul paadoolu yaa ngi jooy miskin yaa ngi jooy ba ci say mbokk waaye jàpp nga ni ku la bëgg xan sa alal rek nga toroxal ko borom bi nee na wa jaaltu lahu maalan mamduuda mën naa àgg ci sax wa banina shuhuda ma may la ay doom nga jur ay doom lu la neex nga wax lu la neex xanaa xamoon ni doom yi danañ la ko laaj comme ni ñu lay laajal alal ji wa banina shuhuda borom bi ne wa mahattu lahu tamhida ma ubbil la lépp lalal la suuf aéroport yépp foo bëgg a dugg nga dugg lan nga yore passeport diplomate su la neexee nga yendu ji Paris fanaani Genève su la neexee nga yendu ji États-Unis fanaani Russie fu la neex ngay dem aéroport yépp nga dem fa parce que diplomate nga sa saak kenn du ko contrôler loo sàcc yoonu kenn newu ci parce que am nga doole am nga kàddu ànd nga ko am doole borom bi ne wa mahattu lahu tamhida nee yemu ca summa yatmau an azid foo tollu ngay bëgg ma lay yokkal summa yatmau an azid foo tollu nga bëgg ma lay yokkal nga toll ci étape boobu borom bi nee na jaam ñépp dekki kenn ku nekk xam nga fa nga jëm su ñu dekkee wallaahi ku ne xam nga fa nga jëm taxaw leen ñun ñépp xam nañ ku baax xam nga ku bon xam nga ñun ñépp xam nañ kenn du nax boppam ku fi nax sa bopp yaa ko tey taxawal nga xool jarul nga naan nit ñi baax naa wala baaxuma yaay juge sa bopp ku baax xam nga ni baax nga ku bon xam nga ni bon ñi bon ñoo gën a xam ni dañoo bon ñi baax xam nañ ni dañoo baax ñàkkul nag ki bon mën na changer roy ki baax ba baax ñàkkul ki baax mën na ñàkk fayda ba roy ki bon bonaat waaye ku ci nekk nii ñu toogee nii nii ñuy déggee nii ku nekk xam nga fi nga doon ku nekk xam nga fi nga féete ku nekk xam nga la ko jaral mbir maa ngoog jumaa jaa ngi nii feesul dëkk baa ngi fees dal nit ñi kenn ku nekk ma nga ca la neex borom alal bi alal la gis kii na ci campagne campagne la gi gisatul sax julli jumaa mais li muy gis rek mooy sama parti na gañe sama parti partisan na gañe gis nga loolu bu amee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na lan tazuula qadama abdin yowma alqiyaama xatta yusala an arba nee kenn du bouger lu dul ñu laaj la ñeenti mbir parti boo bokkoon yaag parti ba da nga taxaw yaa ko sosoon sosoo ko yaa ca bokkoon bokkoo ca yaa laajoon laajoo gis nga li ñu lay laaj sa dund ci lan nga ko jeexal sa dund ci lan bi nga amee 18 ans boo dee góor nga majeur boo dee jigéen ba ba ngay dee loo ci def yaay seul responsable yaay responsable bi dund gi loo ci def <laughs> danañ la ko laaj na la wér wa an shababihi mais danañ laaj sa jeunesse ci lan nga ko def ndax sa jeunesse da nga ko fooyee rek topp rek lu yëngu nga jóg lu ne nii nga jóg toppoo yàlla toppoo yonent bi faale woo dara dara dara danañ la ko laaj gis nga bi ci gën a doy waar wa an maalihi alal bi dañ la koy laaj alal nag ñaari question moo ci am foo jëlee foo dugal dañ la koy laaj foo ko jëlee ndax lew na mën naa lew nga am chance foo ko dugal mën naa ñàkk lew bari na ku am alal alal bi lew mu dugal ko fu xaraam fu mu mënta lay léeg-léeg borom kër génn këram jël xaalis joxe ko noo xam ni bu ñëwee du ñemee wax jabaram xaalis bi fan la ko joxe parce que xam na ne joxewu ko ci yoon mais bu ko joxewoon ci yoon rek dina fier ñeme koo wax li nga ñemewul wax nit kiy dund ni yow mënoo koo nëbb yàlla loolu ne la bir ni da nga ko lay alal bi da nga koo sàccoon da ko koo détourné woon da ngaa ànd ak président moo tax da ngaa ànd ak partisan parti moo tax da ngaa nekk opposant moo tax multinationaux yi ñoo lay financé moo tax nga topp dund ba fàtte dee da ko lay de alal bi foo ko dugal dërëm par dërëm lañ la koy laaj dërëm par dërëm moo tax yowmal qiyaam fuqaraa yi ñooy njëkk a noos ñi woon doole miskin yi fii ci àdduna doon jaamu yàlla ñoom danañu dugg àjjana ay at milliardaires ak millionnaires yi doog a ñëw ndax xam nga bu ñu taxawoon ci buntu ñuy laaj kenn ku nekk li ci sa poos wuññi ko dërëm ñaar dërëm ba mu jeex nga doog a jub dugg bu ñu taxawee fee yow nga yore mille ma yore 2000 kii yore 1000 francs kee yore 500 kii yorewul tus bu ñu ñëwee bu ñu laajee ku nekk li nga yore balaa ngaa dugg dañ koy xam nga ñëw ne man yore ma dara lu ñu lay wax duggal duggal lañ lay mooy miskin parce que amuñu woon ci kaw suuf lu leen sonal gis nga borom 1000 francs bi. su fa yàggee une heure de temps ci leeral dërëm bu ne fu mu ko jëlee fu mu ko dugal borom 2000 bi du moo ko war a gën a yàgg borom 2000 bu fa yàggee borom mille bi borom mille bu fa yàggee borom 1 million bi nag waaw ana borom 1 milliard bi keroog dana taxaw ñu koy xisaab di ko xisaab ba mu naan yaa laytani kuntu turaba aka neexoon yàlla ma nekk suuf bañ a existé aka neexoon ma nekk suuf bañ a existé su dee buur nga woon ku doon fowee alal lan lay wax halaka anni sultaaniya halaka anni sultaaniya président bi ma nekkoon nguur gi ma yoroon juge yi nekkoon sama wet boroom doole yi nekkoon sama wet ñoo ma nax ku nekk naan ma defal defal defal may def fàtte population bi ndeke yoo halaka anni sultaaniya nguur gi ma am ndekk jëriñu ma dara dara dara alal ya ma sàccoon denc maa agna anni maaliya alal boobu jëriñu mbokk yi jullit noonu lay xoole moo tax jikko ji ñaaw jii ci société bi war nañ cee taxaw bu baax ndax gis gu ñu war a gis ni ñoo ngi dund ay jafe-jafe yoo xam ni ñu ngi koy dund mais politiciens yi xam nañ ko gis nga Sénégal gi bu ñu naxantewul ku nekk fi nga tollu xam nga ko gis nga li ñu gis tey ci ci terrain politique bi waxante yu ñaaw yi lépp kenn ku nekk li nekk ci yow muy génn ku nekk li nekk ci yow moom muy génn nañu moytu bew bew baaxul jullit du bew bul ànd ak parti président ba nga bew ndax dëgg-dëgg bokk na ci bew lu ma neex def police du ma lu ma neex def procureur du ma woo lu ma neex def kenn du ma juge ndax président laa àndal loolu bew la te jullit du beew inna al insana la yatgha an ra'ahu istaghna am sa alal di bew baaxul jullit na moytule mel noonu xool leen miskin yi néew doole ñi amul lu ñu lekk amuñu lu ñu naan ñi sonn ngeen di jël xaalis di tibbee nu mu leen neex di sànnee nu mu leen neex di joxe nu mu leen neex ngeen foog ni alal bi duñ leen ko laaj danañ leen ko laaj yowmal qiyaam mbokk yi bokk na ci jikko yi ñaaw topp nag ñaawte fi doomu aadama yi di ko tudd maag moom bokkuñu parti dañuy xëccoo ñu toog waxuñ ci débat d'idées waxuñ ci luy jëme réew mi kanam sàccoon nga fi sàccuma woon nangam yaa ko jëloon danga détourné woon mën nañoo àgg sax ba ci fenal la waxal la lu dul dëgg ngir déstabiliser politiquement ngir toog sa place jullit du doxalee doon sóoral yow miy dem ci débat yi looy wax na nekk dëgg saa boo xësee ba wax yaay responsable ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid yàlla nee na looy wax am na ñaari malaaka yu la gën a jege raqib mu ngi sa mbaggu ndeyjoor toog di la déglu atid mi ngi sa mbaggu càmmoñ di la déglu looy wax moo xam débat la moo xam partisan la foo mënti far su dee dëgg nga gis waxal su dul dëgg noppi la diw sàcc na sàccul amoo ci lu la leer amoo droit nga wax ko bul tuumaal nit ci lu dul dëgg loo mënta justifier waroo koo yëkkati soo ko yëkkatee bu dee dëgg jàmm bu dul dëgg yàq nga deru jàmbur ndax ki ngay wax ci moom daa am njaboot dafa am doom dafa am rakk dafa am mag kon am na lu nekk ci kanamam balaa ngay yàq deram xoolal foo koy teg waaye bul gàddu sa kàddu rek ne naa wax a wax a wax ba waxal ko lu ñaaw ba kenn du ko voteel naa wax a wax a wax ba waxal lu ñaaw ba fa ko nit ñi gis daw naa wax a wax ba waxal ko lu bon loolu nuñ koy moytu nañu moytu badrul aradif nañu moytu jëmbat jëmbët ñaawteef jëmbat ñaawteef mooy waxal nit ci dëkk walla ci bërëb loo xamante ni moom dootul tranquille nañu ko moytu waaye nañu moytu tuumaal nit ba ñu dugal ko ci yoon ne ko ràpp ci kasa bi tëj ñu moytu di waxalante lu bon nañu moytu jëmbat njort loolu politique tubaab la mais jullit warta politiquee noonu bul sotti ci kaw nit ay njort diw moo sàccoon diw moo rayoon diw moo dama dégg ci euh, fan yi ñuy wax naan diw moo rayoon diw waaw yow mi ko wax ak moom bu dee dëgg la yéen a yam parce que bànni nga comme moom toog nga ay at waxoo ko ay at waxoo ni moo rayoon te xamoon nga ni moo rayoon bu fekkee li nga wax dëgg la xamoon nga ni moo rayoon pour pourquoi nga noppi woon ba tey ñu ne ci campagne nekk soxla nga naan diw moo rayoon diw moo nanga mais yow ñu ko jàppee dañ la war a jàpp parce que complice nga kon jullit na moytu yu mel noonu loolu tubaab yi ñoo koy def diw dañ koo bettoon ak jigéen diw moo ëmbal nangam yooyu nga di ko dégg ci yoo xamante ni mbiru personnel nit ki la ah non loolu ñaaw na nañu ko muytu su àggee ba ñuy waxante lu ñu neex nag musiba dana am beneen bi mooy gis nga nanu moytu jikko bu ñaaw jullit na nga yëg ni ci kaw suuf mënoo fee dund lu la neex nga wax nga dee mu yomb mënoo dund ci kaw suuf lu la neex nga def nga dee mu yomb nga dund ci tuumaal ay nit gis nga ku <coughs> ku tuumaal <coughs> moytul tuuma yi ndax tuuma kenn du ci aju pour yàq deru jàmbur gaa yi ñuy waxante nii bu ci kenn jugé nit diw nee nañu daa sàccoon diw nee nañu daa nangamoon tax ma ne nangam moytul lu mel noonu borom bi nee na yow jullit lawla id samictumuuhu zanna wa walmuminaatu bi anfusihim xayra wa qaalu hada ifkun mubin te bi ngeen déggee wax jooju ngeen jàpp ni du dëkk ba dëgg di leer jullit buñ nee dafa def nangam bañal nee du dëgg ba ba ngay am lu leer boo amee lu leer nag bu la neexee nga toog waaye diw dafa nangam foo ko teg ci Facebook bi foo ko teg ci WhatsApp yi foo ko teg internet nit dañuy toog rek jël nit diw moo sàcc nangam diw def na rek nga jóg waaw foo toll yore sa làmmiñ diw sàcc la diw moo nangam bu ñu la nee preuve doo ko joxe jullit na moytu lu mel noonu bu la mbooloo mi yóbbaale bu la wax bi yóbbaale ak foo mënti far far ci ak dal fii kenn nekku fi koo xamante ni dangaa set à cent pour cent déedéet waaye yow fexeel ba boo bokkee ci parti boo soppee ab leader yemal ci sopp ba nga ko sopp waxal ci moom la nga xam soo contre keneen yemal ci contre waaye bul wax lu dul dëgg loo wax ci moom lu dul dëgg yow la engagé te gis nga moom may campagne dem di waxi moom mucc na ci yow de xamula sax bay wax ci yow moom xamula bay wax ci yow kon su ngeen dajee yow mal qiyaam yow yaay rus ndax yaa wax ci moom loo mënta justifier moom waxul ci yow kon jullit noonu lay sàmmee jullit noonu lay toppee moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne man kaana yuminu billahi wal yawmil axir falyaqul xayran aw liyasmut nee na ku gëm yàlla na wax yiw walla mu noppi ku gëm yàlla na wax yiw wala mu noppi kon nañu moytu siiwalante yi waxante yu bon yi ñu bàyyi ko xel beneen bi maa ngi fàttali nit ñi xam nañ ni dimanche la élection yi ndaw ñi bu yaboo bu leen kenn nax bu leen kenn dugal ci lu dugg wut am nga sa carte mooy sa kàddu danga war a voter xëyal nga dox ndànk dem sànnil ka ngay sànnil génnal ñibbil sa kër nga toog ndax mbir mi li muy metti metti am na lool boo ci duggee yaa ciy des boo ci desee jaaxal sa papa jaaxal sa yaay am leen fayda fayda gu mat sëkk ki nga bëgg mu toog sànnil ko sa carte te nga xaar yàlla te xam ne yow faluloo yàlla mooy fal coow lee bëri mais ñun faluñu coow lee bëri mais ñun faluñu sabab la ñuy def mais kii yàlla décidé décidé na ko ba pare yàlla na nekk ku gën ci société bi yàlla na nekk ku gën ci ñun kii toog bu toogee yàlla nañ ci gis suñu bopp kii toog bu toogee yàlla na mën a dimbale askan wi loolu lañu war a ñaan yàlla waaye bu la kenn jala nga xeex nga dëkk foo xam ne yow ka ngay xeexal xamu la yëgu la nga xeex ci dem ci police ñu yóbbu la lu mu ci mën mënu ci dara yaa ciy sonn yaay dugg kon ndaw ñi ñi am carte d'identité war a voté nañu voté ñi amul carte d'identité amuñu lu ñu vote nañu moytu lieu de vote yi nañ ko moytu moytu lieu de vote balaa problème am ñu dugal la ci te buñ la dugalee police xool ni amoo carte d'identité waroo voté yow moom tegee nañ la côté kon dañ la indi da nga nekk ab yàqkat ndaw du def lu mel noonu élève nga da ngay jàng wala da ngay jàng métier wala da ngaa nekk sa buntu àdduna bul nangu lu la dugal bañal bis bu jotee nag ba guddi ga ñu ne diw gañe na ñu sant yàlla ñun ñëpp te ñaan yàlla loolu na am waaye ñu moytu luy taal fitna fitna nag. bu ñu koy moytuloo li ñu njëkk wax mooy état bi na ko bàyyi xel ministre de l'intérieur na bàyyi xel lu mel noonu na bàyyi xel ni dafay nekk bis dana fi jóge procureur de la république na bàyyi xel bis dana fi nekk waaye bis dana fi jóge président bii toog bu toogee xayrun bu toogul na xam ne dana fi jóge su toogee beneen mandat ba ca topp du bokk kon jarul yenn fitna yi tey bu amee ñaari mandat mënatul am ñetteel kon du bokk buñ ko daaneelee mu daanu mu dal nit ñi dal mais warul indi lu rey ay bakkan lu tëj ay nit lu yàq ay der loolu nañ ko moytu beneen bi ndaw ñi na ngeen moytu gis nga fitna yi ñuy wax nii gouvernement bi xam na ko moo tax teel na ko prévenir ndaw ñi na ngeen moytu suba samedi képp kuy ndaw wi na la fekk seen kër polis yëpp am nañu ordre am nañu ordre génn di sillonner di ramasse ku ñu ramas samedi su jàmm amee altine lañ lay bàyyi soo amul da nga continuer ba jàmm am bu yeboo ngeen xam ko xale yi fi dàq dox dox moytu leen gis nga samedi 9h 10h toogal seen kër naan sa ataaya seetaan tele ne ci yàlla noppi waaye boo fi génnee di doxi di jaay man la man la ba ku police ne la kir tim sonal nga sa papa amal na sax sa papa naroon naa boo taje mbaa sa yaay mais dootu ko tal ndax dañ naan diw ramas nañ ko moom fa lay nekk di lijjanti lu la bàyyi te kenn du la bàyyi ku ci sàggan ba ñu ramasse la maa ngi digal sa papa ak sa yaay bu leen dem di ko seeti kenn du ko bàyyi après élection lañ koy bàyyi yàlla nañu yàlla defal jàmm defal lañ ko wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa ajmain